kon bu ñu taxawee fii tey ba def suñu devoir bi nga xamante ne moom moo ñu war muy ñëw voté sànni sunu sànni sunu euh, def li nga xamante ne mooy sunu wareef kon du ñu def lu sant suñu borom. di sant tamit waa Médina parce que gis nañ taxawaay bi nga xamante moom la am di sant sant waa Ndakaaru di sant coalition Sàmm Sa Kàddu ak intercoalition bi yëpp ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp euh, di ci jiital tamit suñu honorable député maire Barthélémy Dias moom mi nga xam ne mooy tête de liste ak suñu tête de liste départementale muy Babacar Mbengue ah, élection député nuróowul ak élection présidentielle parce que nit ñi dañuy ñëw en compte goutte Euh, centre de vote yi nii la meloon. yow campagne bi amoon na ay violence ngay responsable gannaaw bi nga voté ba noppi. lan naa euh, bi nga xamante mooy tête de liste nationale muy def Barthélémy Dias defe naa ne 2009 ba léegi nit ñi gis nañ ko ci langue politique bi te kenn xameewu koy agression ak yooyu dafa fekk na léegi jamono moo changé ñu am ay politiciens yu bees yoo xamante ne yaakaar nañ ne violence mooy tax ñu mën am li ñu bëgg alors que ñun def dagg nañ sama bâche ñaari yoon pour dire pour te violence bi ñuy wax sama bâche dagg ko ñaari yoon te ñi ko dagg xam nañ ko parce que démb am na këru benn euh, coordonnateur militant wu Pastef boo xamante ne ñun fa lañ dugg fekk sama bâche mooy bâche bi nga xam ne moom laa takk am na boo xam ne dañ ñëw fekk moom dañu dagg ko en quatre parties te def loo xam ne rafetul parce que yu ñaaw yooyu jaru man mën naa politique te du déranger kenn du ma kenn dara dafa am loo xam ne moo jiitu ay dëkkandoo lañu ba pare balaa dara di xew donc politique bu mu tax ñuy am ay noonoo wala di am nu ñuy mel ak yooyu jaru ko parce que lii dafay jeex 21 jours ñi ngi ci mbedd mi def nañ rue de Dakar yëpp donc gis nañ ne fu ñu romb Dakar waaye ñi ngi tàllal loxo di saafonte ak ñun te ku ne xam na ne Barthélémy Dias mooy borom Dakar nag dafa leer kon yéen a ngi jox rendez-vous ah incha